Hivi sio Locust Taifila. Abo. dengan Daga Dengan daga Locust. Inna asma tukub yagi. Fone ke ban sai ban ban Mik TV, emu ita. Emu ika. Dom ika. Dom ka bu fire na Ah, no, ka. Eh, Joxale kali Man wa sama Locust. Waaw gars yi kon loolu la émission Locust tey ak léegi nag dama bëgg ngeen joxe fii oh ay léeb looy waaye lu mu tàng doyul. waaw ah. di naan loolu doyul tey lu mu tàng doyul bàyyeeku leen nu mu leen neex sotteeku leen sotteeku xam nga sotteeku. aatu nag. bu fi aatu de. waaw dama aatu dafa nekk ci dëkk bi sonal nit ñi. waaw maa ma aatu. aatu aatu ñun loolu temps bi ah dama rek aatu aatu. aatu aatu. aatu dafa nekk ci dëkk bi sonal nit ñi. Ah. aatu njoolaay bi 7 mètres la. léegi yaatuwaay bi largeur bii cent bii cent boo ko boolee bi deux cent quarante <laughs> xanaa aatoo nga ne ah gën a ñun dañoo jox plateau bi def bala fii ak yow wax dëgg yi non non nañ ko accompagner rek tuuti waay aatu sa loolu waa dëkk bi commissaire woo ma ah ne ma brigadier ay dama laa soxla ma daal di bi ma ñëwee mu yëkkati pistolet ñaari gémmeñ jox ma ma ne ko déet sama loxo bii laa wóolu ma ñëw mu génnee maxdum ñaari gémmiñ mën ko bugguma sama loxo bi mu jox ma saar de combat yi xas nit ñi mën ko bugguma sama loxo bi laa wóor waaw ma ne ko mbiib rek laa soxla mu jox ma mbiib ma dugg ci ko topp aatu aatu ma topp aat teg ci brique ma topp aat teg ci brique ma topp aat teg ci brique ma topp aat teg ci brique ma topp aat teg ci brique ñaari meer yi sox mu ne wàññi seen bokk tourné topp mu ma teg ci <laughs> moom ma teg ci biir aat topp moom ma teg ci biir aat topp moom ma teg ci biir aat topp moom ma teg ci biir bi kuuru aat yi woddoo laa tourné topp aat aat teg ci biir ma topp aat aat teg ci biir ma topp aat aat teg ci biir ma topp aat aat teg ci biir ah? aatu dafa jàdd ma dóor ko sama loxo ci pooj bi teel mu dam ba maa ñëw gars yi sori kesari maa leen teel mu tànk aatu bi dam ma foog ne aatu fa la yem aatoog damido aatoog damido aatoog damido aatoog damido aatoog damido aatoog damido bi aatu yi jàdd laa jël aatu ko góor ñu naa ko tépp ci beneen tànk ba tànk boo ma dam kon ñaari tànk yi yàgg na. léegi lu muy dawee. ma foog ne aatu foofu la yem aatu muy suuf lokki di dem aatu ñaari tànk yi aatu ñaari dama de aatu ñaari dama de ba ba nekk ba gis kàmm boo xam ne 7 mètres la kàmm bi. 7 mètres kàmm. waaw aatu yi dama bu bu daay bi wala yaatuwaay bi nii. Ah, bu koo tël ma daw rek jël sama loxo dugal ko ci poche aatu. def na ah, waaw waaw bu ma ko aatu yël bu ma ngëm aatu yël bu ma ngëm aatu yël bu ma ngëm aatu feex ma génnee ci kooju aatu bi ñeenti kilo yaa oh maa sama la laaj observation sa waay man damay xeex eh, déglu ma man damay xeex gars yi genre combat yi tiim dóor sama biir bi mam fokk ma jël sama bëtit gi teg nee jël sama res bi teg nee jël sama mbàq mi teg nee jël sama xol bi teg nee ut ngeer ngeer pafton bisaab sëb-sëb doole ca laaj ut puso. waaw wóoyi ña ko continuer xeex na ko. gars yi maa ngi jégalu billaahi maa ngi jégalu maa ngi jégalu soo maa ngi jégalu de waaye da ngeen di comprendre rek ni kii moom moo demee maa ngi jégalu ku wér nag man maa ngi commencé tàng parce que dimbali ma rek man damaa sonn ci na waa kay wàccee ko rek dama baara bay ko. baara bay ko daa sama waaw na baara bay ko rek. ñaaw ñaaw kontaan. waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum. ma la Paa Kaane ku xam Kaane xam saf ak nokkas. dëbb ba mu nooy ñëpp. toq rek toq rek ah aywa limal ngay. wax nga bu ma fa da ngay da mais mën naa ñu fay dox lu diis koo xam ne consommé buñ ko nekk di ñu sonal ak wax yow la ñuy dem. ma dem si sàcc ba rek. ay boy non mii sàcc bi tos tos sàcc bi combien la guddi yow. sàcc bi ñëwul engagé yow. lu ma ci xam sàcc bi yow dugg na fi yow. lu ma ci xam. tey daal di nettali histoire sàcc bi ba ngeen kontaan waay. bari laa Sath laa moo ñëw sama koñ. Hmm. opéré koñ bi bëccëg gi maanaam mu opéré wër koñ bi wër ko wër ko ba koñ bi jeex seppali benn kër képp ni kër daal mool gu mool ki il faut mu affronté ko. kër gi lay eh, kër gi la ne kër gi oh, daay jël doo ko sama poche doxal moom. xanaa ko xanaa ko wàññi may moom sàcc bi moom sàcc bi laa lay waxal nii moom lay dëggal ba tey nii. oh ñëwal yow la ñuy bi daal di ñëw sàcc bi noppi sàcc bi daal di xool kër yi xool xool ko gis xam ne fii tëj nañ lépp ngeen mais kër yi huitième la ci kaw huitième bi tëb moo ci yàlla ci may sàcc bi jékki-jékki rek ne tëdd prier huit. ba jëmee daal sàcc bi prier ci biir kër gi. <laughs> ñëwal. laaj ma dugg bi dugg comme nii man laa lañ ko doon fa del man laa rusali man laa ba warul tëj sàcc bi tourné tourné. yaay yaay waaw. sàcc bi ne non naa xoolal pexe xam nga ko ñëw na engrais. ñëw na engrais maa moos. xool fenêtre bi xool gauche xool droit xool gauche xool droit jékki na xaaral sax fenêtre bi lay buqi ñu xool rek néeg bi yo fii yaakaar na fi la àll ji nekk. rek mu ne nii mu ne fàtte gu réel ne tey ba bëre fekk fa benn meegu màgget a màgg ba ñëpp daj na ba naa ko. mais mais mais. ak léegi bu ma dagg bu ma dagg